بسم الله الرحمن الرحيم والزاريات زروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون

الله الله الله أحمد أحمد كانوا نور السلام عليكم مسلم السلام عليكم يا ضيوف القرآن سيدنا عثمان واحد اثنين c'est Ousmane Il ne mën nañu yegg si ko faire parents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 di leen dalal jàmm yéen tamit way jur yi nga xam ni bu daara xaaja binta ibbi woon te gisuñu benn ndonga bu ñu jàngal tamit dafa naa ko liggéey bi day sooxe ndax kiy jàngale foog mu gis ko mu jàngal liggéey boobu mën a sotti ñu nekkoon ci li ngeen ñu santoon ci seen njaboot ci def ci ñoom xam-xam ci def ci ñoom alquran ba am ci benn résultat bi ñu fasiyene tay nak nag wan len lu tuti ci lu bari loo xam ni daara ji doon na doxe ndimbalu yàlla ba amoon ko ci ndongo yi nga xam ne déngoon ngéen ñu ko waaye pour bañ a guddal ak gagné bi incha allah dañuy jublu rek mubasharatan ci programme bi ndongo bi nga xam ne moo ci njëkk te moo ñu war a ubbil alquran ñu jox soxna Maawa incha allah mu ool ñu ko mu ñëw ibbil ñu ak alquran ñu barkeelu ci alquranul karim. di woo ndongo bi jiitu ci ndongo yi. موي خالي بو نيوخ فاطمه توري مو اوبير نيو جوتاي بي تي ايات القران ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم أفلا تذكرون تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكبر ترتجد لنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 والشمس وضحاها والقمر إذا جل والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يحشاها والصبح السماء وما بناها والأرض وما تهاها والنهار إذا يحشاها والسماء وما بناها والأرض وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم Ouma Traoré Ibrahim Diop Roqaya Ly Habibatu Aïcha Ka bismillah. Shaytaani rajiim

كلا لو تعلمون عين اليقين لتعلمن اليقين ثم لترون عين اليقين لتسألن يومئذ عن النعيم تكبير Très bien. Panan la ñuy tiimee. Tem daal yambala. Yaa na ci xol waaye bismillah. Masakara masalah, Très bien. Wali waral tim. Waral tim telah nyakonda barakar kargen waktu kafe bar. Très bien. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Takbir. kalau wax nañ fi am solo loh, xam ne mag ñi xamuñu ko léegi nga dem ci jotaay boo xam magu rek wala mu sóor nga tas rek mu ne ah fii daal xam naa ni jàpp du fi yomb naa bàyyi ba ak kër ga wala ñu toog ci waxtu boo xamante ni comme ni ko xale yi moo mënoon a mu nekk yu sew yoo xamante ni ñun jigéen ñi dañ ciy xaw a sàggan kon xale liñ fi wax lu am solo la yal yàlla barkeel leen euh, ñu woowaat suñu ndongo li ñu woo woon Mariam Bintu Saliha Marega Mohamed Gueye bismillah bismillah ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقول الناس كالفراش المبثور وتقول الجبال كالإن المنفوث فأما من ثقلت موازينه fahuwa fi syati raya wa amma man khaffat mawazinu fa ummu wawiya wa ma adraka ma hiya narun khamiyah takbir takbir ci lañuy dund ci lañuy dee màggal yàlla borom bi très bien waa nan la ñuy jàppee. su may jàpp damay laab du am saabu du am diw du am dara ma yéene jàpp mawa bismillah marahas nyari lokabasi di gujara Netion, magalah Netion, masalah nekunyetiyon mu masulmunyetiyon marahas basi contoh tarenyetiyon marahas basi contoh Netion, mama sa sama bapu. dem a delesiwaat ma masaa samay nopp si biir ak si biti ma raxas sama tànk ndeyjoor commencé ko si baaram bu ndaw bi ba si dajoor ma raxas sama tànk càmmooñ commencé ko si baaram bu mag bi ba si dajoor ثم برم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين Très bien. Walu yàq jàpp. Nelaw yu ba dem باتندا بانيلا وال تكبير di commencé fi mu war a commencé di njëkkee ndeyjoor di mujjee càmmoñ te bëri na ñoo xamante ne xëy na ci yenn aaj yi sax xamuñu woon ni ñuy jàppee. takkusaan innal insaana naka doomu aadama la fi xuslin ñu ngi si pettange illa lazina amanu ba mu des ñi gëm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 بكى أو خالها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى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 وسياكو سير السماوات وما الأرض ولا يؤوده إذهما وهو العلي العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول watiyati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen kenn ku nekk ci yéen asaman si njabootam te sàmm bu nekk dinañ ko laaj li mu doon sàmm su may lekk damay wax allahumma barik lana fi ma razaqtana وجعلنا من المسلمين بسم الله bu doon gane ci quartier bi du dal kër kenn ku dul kër imam ñu dalal ko tatagal ko ñaanal ko yàlla lépp loo xamante ni mi ngi koy ñaan ak di ko jiite yàlla na ko yàlla nangul ak mbooloo mi topp ci ginnaaw yépp imaam Cherif Maki Haydara euh, waxuma waa site Alioune Sow rek waaye wa àdduna bi yëpp miin nañ ko bi yëpp miin nañ ko kon cité Alioune Sow bu ñu amee Cherif Maki mu ñëw nekk seen imaam kon loolu sant yàlla la bu baax imaam ñu ngi lay dalal di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal tabaraka wa taala yal na yàlla gën la dëgëral ak imam Moussa Diagne mi nga àndal ak ñi nga xamante ne bii ñoo topp ci sa ginnaaw ñëpp ànd ak yow ñëw. su ma lekkee ba pare damay wax alhamdulillahi lladi atamana wa saxoona wa jaalna minal muslimina alhamdulillah. juróom benn la gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm téere yàlla yi gëm yonentu yàlla yi gëm basu penc ba gëm dogal bu neex ba ak bu nakari ba di yóbbal mooy ragal yàlla ponk islaam yi juróom la seede ni amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla muhammad yonent yàlla la nga taxawal julli nga war weeru koor nga joxe màkk si soo ko mënee. sàmmoonteeg waxtu julli yi rawatina di ko julli ci waxtoom kay maytandiku nekk ci yenn bërëb yi wala ci yenn événement yi bay faatu waxtu julli kon ñu ngi jaajëfal xale yi fàttali bu am solo bi ñu fàttaliwaat. macha allah ñu ngi woo Mouhamed Ndiaye Ardo Sow Cheikh Barham Niass bismillah. kenn amul droit bañ a wax ñaari baatu seede yi. kenn amu ci droit mu neex la nga wax mu bañ laa neex nga bañ a wax déedéet kenn amul droit bañ a julli même boo amee ngant da nga ko war a fay kon kenn amul droit bàyyi ko kon yooyu benn du ci jaamu yàlla kenn amul droit mën ko weeru koor jot nga ne doo woor kenn amul ci droit kenn amul droit mën ko war a joxe azaka nga ne doo ko def kenn amul droit aj makka jot nga ne nga mën ko ànd ko wér nañ la ko war a waxee nga ba pare nga ne duma ko def kon yooyu yëpp benn bi ci jaamu yàlla force la jaam bi def ko kon lan mooy jaamu yàlla gis nga bi mu ne bi mu ne innal illa alladina amanu boobu la juróom yëpp dugg boobu la juróom yi dugg léegi nag mu des lan li nekk ci suñu diggante wa amilu saalihaat ñuy defalante lu baax loolu mooy jaamu yàlla bi ñuy dugal aljana ñun yàlla nañu ci yàlla boole incha allahu rabbi kon ñu bàyyi xale yi rek ñu continuer nga gis ni ñu ngi gis seen yaay yi di tàllal seeni loxo kontaan lool nii xale yi bëggee bay wane ni gis nañ suñu yaay noonu la jur yi bëggee bay wane ni kee di yéeg sama doom la te mbokk yi fii fii la waajur war a concurrence ak moroomu waajuram na sama doom a ngi yéeg di tare alquran waaye pas yéeg di fecc ñi ngi jëm ci vacances insha allahu rabbi xot bu len tang sama yaram bi sax <laughs> ala ayta allazi yukazibu middi fadalika allazi yatukku yati wala yaxuddu ala ta'a mel miski ma seetee ku su ma seetee feebar dama koy ñaanal ma wax astaghfirullah al-azim rabbu al-azim an yafiyata wa yafiyata. Eh, beneen bi it xale wax nañ ku feebar boo ko seeti jee da koo war ñaanal waaye ñun eh, dañoo xaw dañoo xaw a am habitude bu ñuy seede bu feebar rek ku mel ni aji day faral di def sayda prix bu bari defe ni loolooy farata gi te farata gi mooy ñu ñaanal ko borom bi yëkkati ko ci feebar boobu ñuy ñaanal képp koo xam ne tawat yàlla ko yàlla may taw seet may ko aafiya bismillahi rahmani rahim Well, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل أهل الله وخاصته من خلقه هم أهل القرآن ثم إننا أتينا نشارككم في هذه الحفلة الميمونة المباركة حفل القرآن الكريم وتعليم أولاد وبنات المسلمين أمر دينهم إنه لفضل كبير نشكر السيد الأستاذ الحجة بنت جي على هذه الجهود المبذولة فلها منا جزيل الشكر mbokk yi dañuy sant yàlla subhaanahu di julli ci yenent bi sallallahu di kontaan ci fekkee jotaay bu mel ni muy jotaay alquraanul karim yenent bi sallallahu alayhi bi muy génne àdduna dafa am lu mu wax ci xadiisam taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu baadi abada kitaab allah wa sunnata rasulihi wa fi riwaaya wa itrati ahli beyti mu ne maa ngi dem waaye bàyyil naa leen ñaari mbir fekke yéen a ngi ciy jàpp du ngeen sama gannaaw lan mooy ñaar yooyu alquraanul karim waxu yàlla téere yàlla ñaareel bi mooy xadis xadis bi mooy sunna yenent bi sallallahu alayhi wa ci beneen riwaaya sama waa kër maanaam sama njaboot ahlul bayt ala kulli xaal sayida aja ñu ngi lay ziyaara di la sant ci taxawaay bi yaa ngi defar diina yaa ngi defar jikku yaa ngi defar société yaa ngi defar nation bi ndax defar benn xale rekk kenn xamul fu mu tolloo ci lislaam ndax xale tey ñoom ñooy espoiru ëllëg imaam yi président yi député yi pilote yi képp koo xam ne yor na responsabilité bu kawe ci àdduna bi ci jamono tey ñi war a jël relais bi ëllëg mooy xale yi moo tax kii defar xale mi ngi taxawu askan bi yëpp taxawu lislaam bi yëpp yal na la yàlla fay déglu nañu fi loo xam ne ñun ñu fiy fekke am na ñoo xam ne xamuñu woon loolu lan la ndax am na xale bu fi firi asri am na bu fi qul huwa allahu ahad ñu bare ngi jàng ñaari sar yooyu ci seen julli te xamuñu won lan moko lan lan lay firi kon ñu ngi sante yàlla di lay sante di sante xale di len ñaanal yalla na len yàlla sam yalla na len yàlla tek ci siratal mustaqim yow itam yalla na la yàlla wéral may la ndam ci li nga taxaw innahu samiun qaribun mujib ma ngi andak imam imaam Diagne juma bi yeb cité bi yeb xam naa cité bi am na conseil di quartier danañ ñëw bu soobee yàlla ndax lii yow yaa ngi jàppale cité bi yaa ngi jàppale ñëpp xam naa ñiy jaar ci école bi walla ci jardin bi ëllëg ñoom duñu nekk problème société ñiy toj du ñoom ñiy yàq du ñoom ñiy saaga ci mbedd yi du ñoom ñiy sàcc du ñoom incha allah am nañu yaakaar boobu fa yàlla kon jërëjëfati jërëjëfati allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka xamidu majid walhamdulilahi rabbil alamin aji Binta Gueye am nga sas de waa bi yëpp fi mu tol nii am nga sas wu mu lay ñaanal nag yàlla na diis lool waaye yàlla na la ko yàlla téeñal ba doo yëg diisaa دولة الستاء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من دون وآمنهم من قول صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه يونت صلى الله عليه وسلم Siye mọi thì chẳng al-Quran ta đi có chẳng gale. Julinya tanah, Juli julam lah subah Devar, Tagosar, timis Aceh Subanya terakala Subanya nilakara Disbanya terakala Dirpanya tulakala Takusannya terakala Takusannya tulakala genya Tarakala Timisnya terakala Timisnya tulakala genya Tarakala terakala Tulakara tulakala macha allah sa biir. dëgg la danañ bokk ci xale yi raw comme ni ko imam bi waxee léegi ku bëgg a defar société faaw nga defar xale yi ndax ndaw yooyu ñooy màgg ëllëg. ñu ngi woo Moustapha Diako. Mama. cause الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره يرد صلى الله عليه وسلم गम याला गंबस पेंशियम बुल्लर सालखंड सैकैप को गम याला गंबस पेंशियम बुल्लर सालखंड très bien alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki sallallahu alayhi wa sallam nee na ku yaramul kenn ku yaramul kenn kenn kenn ku yaram ku yaramul kenn kenn ku yaram damay dugg ci duus damay wax allahumma inni a'uuzu bika mina al-khubuthi wal xabaa'is su ma génnee ci duus damay wax. su ma génnee ci duus damay wax. ufraanaka ufraanaka tamuy ñetti yoon. au prophète. au prophète. di àtte lépp àtte fi un enfant de croyant. la la malaise la grande voile. Elle a son plus vite le connu et invitera les tout en français. Allah. Allah est adonné et mis dans le côté. Tinda yombula yéla si xol wa bismillah doo si suuf paasa kaana maasa. loxo. waaw luy waral kii. lu waral kii waxtu baa ragal ee yow bi kulli azwaajika waxal say soxna wa banaatika Walisa ilu minina abjigenu tuli nyepu yudunina lai inami jalabi na nyukati ko. ba si seeni dënn zalika adna ay yurraf na falaayu zayir suñu ko defee li gën wa kaana llaahu gafuuran raxiima yàlla aji jéggal aji yërmande la yàlla mooy sama borom te moo ma bind te moo bind sama yaay ak sama papa yàlla moo may wol sagal may lekk te moo may wol sagal may naan su ma feebaree moo may faj may wàccee taw bi ci kaw asamaan si mooy saxal garab benn bu bu wala ja mu dul yàlla yàlla moo bindu guddi moo bindu bëccëg moo bindu asamaan ak suuf si yàlla moo bindu leen wala mu wal si doom kon topp moom la ñu képp ku dee sa bakkaare yàlla suñu borom xalaanan na si moom aljana yàlla mu ñuy gis ñu nii def te ñun gisuñu ko suñu borom yàlla كبر فابع وصلى ولم تطلع وتتسلى

halaqu Fasi allaman insana ma lam yalam Nafati dula Nasang lema sang lema Bama aga karam Wapu ma aga karam Kan mau karam Sana subah Sonewa Ya hadisha Mau Ya la tulagat

wala atum benn nafa wala ne ko kii de mooy yonent jamono mooy malaaka bi yàlla si yonent yàlla Muusa aka neexoon ma fekke boy koy génne reewa مروا عن القوارب أمو البن يلن تبي وتشي الله تدرحي war ci suñu kaw jigéen ñi te duñu wàcc ba ba àdduna di tukki ni yaa ayyuha nabiyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaai almuminin yuduniina alayhinna min jalaabibihin ndax dhalika adna an yurafna fala yuzayn wa kaana allahu gafuran rahima mu ni yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam na nga ma waxal sa jigéen ñi sa soxna yi sa njaboot yi sa doom yi ak jigéenu jullit ñëpp ak njabootu jullit ñépp ni leen nañu muur seen bopp yi ba mu wàcc ci seen baat yi wàcc ci seen dënn yi mooy seen muuraay yi na sëmbaxtal ba muur seen dënn yi mu nekk loo xam ne ndigalu yàlla boo xam ni dañuy foog ni muuraay aaday naar la wala modd la boo xam ni parfois dañ koy jël ñu xewal ko parfois ñu teg ko fee ndax yenn saay day xew yenn saay muy xew yi déedéet te ku ne xam na ni jigéen ni ko yàlla bindee li gën a war ci moom ak li gën a yell ci moom mooy mu muur ay cëram te yàlla daf ni buñ defee loolu sama ndigal boobu buñ ko defee mooy li nga xam ni mooy gën ci ñoom mooy gën ci ñu xàmmee leen defe naa boo génnoon fii nga wuññi sa yaram wane sa yaram ci biti nga ànd ak ki nga xam ne muur na yaramam comme nam ko war a muuree sol na comme nam war a soloo sart yi nga xam ni moo aju ci colu jullit mat na ci colam googu ni ñuy ñàkk a ki nga xam ne muurul ay cëram ak ni ñuy respecté ki nga xam ne muur na ay cëram defe naa du doon benn te xale yi dañ koy fàttali pour seen nja seen uh, waajur yi ñu xam ni ndigal la loo xam ni tabaaraka wa taala moo ñu ko digal waaye du loo xam ne day xew di xewi wala loo xam ne bu la neexee nga def ko wala bu la neexee nga bàyyi ko ndigal la comme yàlla nim ñu digalee ñu julli bi digal la comme yàlla nim ñu digalee ñu koor te li gën a wóor mooy nga muur say cër balaa ñu lay muur xam nañ ni kenn du génn àdduna ñu jël ko na mu génnee àdduna ak façon bu mën a doon ñu dencee ko jébbale ko noonu boromam kon li gën a yell mooy balaa ñu lay jébbal sa borom di la muural say cër yow it nga muur say cër ba liñ lay muuree bis bu malaaka yi fekkee la ci biir bàmmeel ñu xam ni kii du bis ni ko tey ci la door muur ay cëram waaye dafa nekkoon koo xam ni da doon muur ay cëram balaa ñu koy muur tey yàlla te ku ne xam na àdduna bi léegi ni mu bindoo de demeetul comme nam daan demé fu ne la lay fekk nu ne la nit ñi di génné aduna li gëna metti moy da ngay nekk ak sa mbokk mo xamni bëggo sax tib bu tang ci loxom mu nekk di dundé no xamni yow nonu gëna lu la te nga xamni suñu borom tabaaraku taala lim wax rek moy dëgg ni mi atté doomu adama yi moy ni nga xamni ci lañu génné aduna té bo boo sa yaram nga génné nonu aduna défé na day daw yaram lool ñu jébal la sa borom mur la mu lér la ni yow ba nga nekk ci aduna muray gogu sa borom ñi ngi ñaan yàlla mu jàppale ñu bañ nangul ko ndigal loolu di ko def comme ni mu ko santaane waaye mu nekk xaalisatan li wajihi tabaraka wa taala mu nekk fàttali bu rëy boo xam ne dañ koy njëkkee ci suñu bopp di ko jëmale ci waajur yëpp xale yi la am solo lañ jàng lii moo tax uh, yóbbu sa doom mu jàngi diine mu am solo lii day àq boo xam ne waajur bu ne da nga koo amee sa njaboot dafa gën a dal xel lool ci jamono bi fu mu toll nga jël sa njaboot def ci ñoom diine def ci ñoom alquran yàlla tabaraka wa taala bi mu ne iqra dafa dafa leeral bu baax ni bismi rabbika lazi xalaq li ma wax nga jàng ko mooy ci sa turu borom bi nga xam ni moo la bind ndaxte jàng boobu moo lay jariñ àdduna moo lay jariñ àllaaxira kon ñu jéem di gën di soññ di taxaw suñu njaboot yi ci ñu jàng seen diine ndax jàngaat lay doon sax ci ñun jur yi nga xam ne yàlla dogal na ñu sàgganoon ba biñ nekkee ndaw jànguñu suñu diine am na solo yàlla na yàlla barkeel xale yi yàlla may ñu dégg ak topp ci li nga xam ne xale yi wax nañ ko fi رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون